mu ngi noonu jël na drapeau papam per Kayre du am am solo Ibulaay def ko tuddee ko ki nga xamante ne moom mooy Boy Kayre mu doxoon ci digganteem ak Laurent njaago yàlla dogal na nag sekk ndaanan moo jël drapeau bi yóbbu ko yoof ci kaw Laurent waaw mu waa yoof la léegi nag jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax drapeau Uba moo ci des bu leen fàtte le 14 di dimanche bii di ñëw diggante Petit ak ki nga xamante ni waaw Pambaay na ñëw léegi mayel Pambaay mu toog ba pare mayel mayel Pambaay mu toog mbër mi mbër mi mbër mi mbër mi leer na Pambaay toog waaw tooga tooga Pambaay kaay ni defal ni defal ni xaar après dañ koy yëkkati après dañ koy yëkkati su waxee après dañ koy yëkkati Lamine Lamine Pambaye wax naa la sànq ni la. waaw xaar dafa am lu ko père dafa dafa. Euh, père dama gis nga ñëwaat. waaw ndax Pambaye lan moo waral ñëwaat. tax ba ñëwaat. dama ko bëggoon jox sam place bu toog benn. waaw ñaar ma koy félicité ay supporters am na ma. doo dem foog nga wax ci moom. waaw waaw li ma mën a wax si moom bari na moom Pambaye. seetaan naa ko ci tout tànk mbapat seetaan naa ko ci tànk mbapat naa ko langal naa ko mu bëreeg général ay yoonu yoon tey ma gis lu ma xaw a jaaxal ci moom ma gis ne li ko li ko manqué woon ma gis ne li ko manqué woon dama gis mu débuté ko ci làmb ji bu yóbbu adversaire bi yóbbu jox ko trois avertissement yóbbu ko kaw àggale ko malheureusement ñu desuwaat mu yóbbu ko ardo man li ma koy laaj mooy xanaa yow ba nga demee ci dëkk ba nga nekkoon Espagne la xanaa da nga dafa bàyyi woon bëre ba ndax mën nga bëre bi ñu bëgg lañ mësu xam ci yow mësuñu xam ci yow xeex te tey ñu gis ko muy xeex ñu lay wax encore félicitation di la wax nag fu mu ne nii yow làmb ji da ñëw rek dekk da ngaa ñëw rek li ñaan naan defal nag da fi gëjoon mais bi nga ñëwee won nga ni ngi new bi bërikat nga mës a doon te dégg naa sa communication te dégg naa aussi ay entraîneur wu sa équipe bi nga nekk altol di moo fadam wax ci yow loo xamante ne dinaa bàyyi ñoom xëy na ñoom am occasion wax ko nee nañ ma yow kese yaa entraîné équipe bi moo fa dem ne ñoom sa entraîneur nee nañu yow kese yaa entraîné kon boog. résultat baa ngi nii résultat bi ngi nii waaw. <laughs> aywa Lamine. Pape maa ngi lay nuyu. Pape Sakho Dior sama boy sama xarit yàlla ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana. père maa ngi sant yàlla bu baax julli si yonent bi di gërëm waa Guédiawaye bu baax a baax di sant waa Guédiawaye di la sant baax di la di gërëm Lamine. père man fay waa Guédiawaye tey barki Mouhamad fan yi damay dox jooy ay doomu aadama ay xale ndaw kenn nelawatul kenn naanatul mag ñi paay foo romb ñu di ñaan benn kàddu ñëpp ñaan tey ay tuutànk li may wax sa jur dama ne man ba may am combat ba borom sereet ay jàmbaar borom jakataay combat dóoru yi woo sama koñ gars yi jël ma génn xaalis bëri ma sama koñ man saju ma ko aw may ay millions mais sama waa koñ ñu yëkkati seen cent francs seen sama waa ko ñu génne seen xaalis ma jël sama reliquat ma motal jënd ko ay billets waaw maa ngi sant Père Dieye jàppale si combat bi mais maa de moo faram staff école de moo faram maa ngi leen sant bu baax wa saaka jor suñu daam nekk nit ku baax nekk kilifa yàlla na ko yàlla defal jàmm ak école de moo faram man amul droit xam nga xam nga xam nga dama gis nga futteeku ma ne lamin kii bi mu fiy jógee dafa tuuti woon jaaxal ñépp tey bu ñëwee indi état de forme bu tol nii kon nan la war a def nga ne ma dafa wàññi poids bi sax ma ni la xaw ma lenn la xawoon a manqué tuuti te daawul sax feeñ muy xeex bi ma gis tey mu indi xeex boo xamante ni làmb sax jeexoon na ca départ kon kii li ñu doon xoor ci moom ak di ko xalaat moom la wone égal lui-même toujours égal lui-même. Paala joo lamb nag daf ko soxla. lamb daf ko soxla fii nu tol ni waaw. Paala. Hmm. joo tingo mucco amigo mio boxeador. oh Espagne. loolu dégguma ko dama am xarit bu ñu xam ne ay boxeur lañu. waaw ay tubaab. <laughs> waaw ñu bàyyi seen liggéey ba seen di ma jàngal xeex. man lamb ji waroon na jeex bu yàgg mais man man man waa géej yooyu man du ñu gën a gore. Hmm. ay xale yu ndaw ay maire paa yi imaam yi foo romb benn kàddu. kon man war ma ñu di wax def sama bopp man amu droit def erreur dëgg la te ku bëri 19 combat doo gan si lamb ans am beneen expérience boo xam ne amu ko woon am am beneen yaraange am beneen conscience tranquille bu baax li may wax bu baax a baax ma am ay xarit espagnol yu bëri bëri tengo mucho amigo mio tengo mucho amiga España ñu ma bëgg lool may tengo mucho amigo mio xitaano ma yor ay ay xitaandoo ñu ma liggéey ak ñoom ñu baax a baax a baax boya dala solo todos mi compañero de trabajo todos mi compañero de trabajo tengo mucho amigo muy España boya muy contento para todos man kontaan naa pour ñëpp ah, ay tubaab ay ay tubaab ñoo ma jàppale entraînement dama ne waa déglu ma ay tubaab ñoo ma jàppale entraînement ay sénégalais wax naa ko sénateur bi ëpp sénateur bi dafa am ay sénégalais yu bëri ñoom Pablo Matar ah ñoom Samba Mama Ahmed Assane Mamadou Ndo ñu bëree bëri bàyyi seen idée bàyyi seen liggéey di ma entraînement Sénégal may contact guddi di kon diglu ma rek samay vidéo après ñëpp nañu gis samay vidéo dama def samay vidéo nëbb mais dama entraînement samay vidéo man su ko dam seen gisoon tey lamb ji mën na yàqu ma yor samay vidéo nëbb gars yi àndama liggéey may ñibbisi billaahi wallaahi wa taala man ma ñëw euh, di pare sama combat diglu ma rek père ñu jox père père ñu jox ma avance ñu jox ma avance ma ne avance bi dama ko jox kenn damay defar sama néeg ma ñu fekk sama néeg yaay yàqu sama néeg mag ma ne xaalis bi dama koy defar sama néeg yaay taalal sama loxo sama yaay bu ñaanal ma commencé ko ba affaire bi egg ba affaire bi di pare sama yaay gaañu sama ginnaaw avant mooy ñëw sama yaay ñaanal ma mooy bëri ma wér ñàkk a jori mën a ñàkk dina ñàkk waaye du jëriñu ma ne ko yaay daam seen lay bëri le deux laa war a ñëw mu ne ma incha allah di nga ko daan yàggul mu feebar li ma li ma doon préparé sama combat xaalis ma yoroon yëpp ma envoyé ko ñu ko si dëj bi mooy ñëw yoruma dërëm ay sénégalais barki Seydina Amsa waa wóor ba waa wóor ba capital ñoom Matar Ndiaye ñoom Pape Mour gars yi yëkkati xaalis bu bëree bëri jox ma ba ma ñëwee ba léegi lamb liggéeyuma chaque trois jours quatre jours gars yi dugal ma quatre cent euros cinq cent euros man duma li ma gars yi may si xaalis waa espace su ma ko compté woon billaahi wa damay kon damay six jours mais dañ maa jàppale waa wóor ba tubaab yi ñëpp ma jàppale waa wóor ba capital aw ma seen fay daara tijaani daara muridi daara sëñ Abdou Karim ma def si ñëw géej waa géej waay waaw loolu a xam fan nga jëm Pambaye ma ma am ay booy nekk si kaso bi alpha boobu toog sama cumkaay ñoom jogo ñoom waa Sambour 10 Sambour 9 ñoom Mor Mbène jogo waa Mbour Campenal bàyyi fenn sama booy États-Unis ñoom Mor ñoom Lamine euh, ñoom tuddati sax bàcci booy jox ma xaalis bu bëri bëri booy Lamine Ndiaye may naa la victoire ba si états barke Seydina Ahmed fan foo bëgg man ba may jógee ba may ñëw yéem a jël si man la carrément man si adversaire du ji laa soxla si ceeb du ji laa soxla duguma rek nga ne man la carrément ku xaar bëri ak ñoom franc ñoom rek rek ba tey loolu laay wax man ñoo ñoo sama ndaataama sama ñu la mais dafa am ku dugg sa kër barki bu ko guddi la boo dina si waat booy maa leen dàq ñoo ñooñu ngay wax ni maa leen dàq bëri ëpp leen ñooñu ñan la ñooñu ñan la dama la ma ni dafa am ku dugg këram barki démb kan la te moom booba newu fa def fa jéyee ñu ne Pambaay ñibbisi na ma ne mais Pape bu ñëwee régler problème bi kooku kan la kooku kan la kooku kan la ah, xam na ki moo koy wax kan la wax ko koy wax moo ko xam kooku bëri na bëri na premier combat kan la kan la kooku wax nii kan la xam na ko bëri na premier combat maa ko xamul kan la booy tukki ah. moom tukki sax moom moo tax ñuy laam laam ak booy tukki mais booy maa rosi lambu maa ëpp fit maa ëpp jom maa maa leen gën a ñemelu xotoogu fukki junni yoon kuy xaar bëri añoom rëdd añoom fara añoom añoom déggalum lax man du dama ne ku dugg écurie moo faram daan fa guy gi wala daan saaka joor numéro 2 wala nga daan wala nga daan waa waalo wala écurie waalo mbaa nga daan marre maa daan guy gi daan anisay 2 mbaa la dëgër 2 maa sa kaw Balla Gaye numéro 2 sunu grand frère sunu mag ñu ngi koy ñaan yàlla may ko ndam bu rëy rëy rëy eh maaji maaji papa boy jine ñu koy maaji maaji lamb lii la lamb ak li ñu ànd papa boy jine billahi wala sama frère kenn dàq bëri Sénégal man ndéygee sama xar ma yërëm ko yàgg yëgal ay millions ma may ndéygee yàgg yëgal xaalis bëri ma yàlla na yàlla dafa leen jàmm yàlla bu dara yàq diggante Ndeye Gueye ak Papa Boy Djiné ko dara yàq moo faram yàlla ko yàlla xaar àjjana bu baax. jërëjëf drapeau Uba nga jël indi leen drapeau bi indi drapeau bi awa awa jógal. force kër Pambaay. Ah, kay kay. Bébé Gouy Gui sa yaram tàng na de. waaw waaw dina wax waaw mais jëla drapeau ba pare jëla drapeau ba pare pap pap dalal pap jëla drapeau ba pare ndax yomb. force kër Pambaay Cheikh euh, Cheikh ñu ngi di président maa ngi sant bu baax ba leen sant sama waa koñ mais rek paay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa Diboncé waa Rive Prodige waa Pape Koro waa Malika sama taaw papa yi waa sama taaw papa euh, may si sama taaw yaay Pam Ndiaye ak waa Espagne ñëpp wël ba capital euh, waa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa Xayane waa Salo waa Rewus Maman Ndiaye borom Rewus borom Salo Pambaay ma leen victoire bi waa Uba dañuy liggéey waaw waaw dañuy liggéey. maa ngi gërëm Serigne Thiel xaaral xaaral xaaral xaaral. Pambay Pambay temps la nag temps la Pambay. Pambay déglu nag yow tamit waaw Uba dañuy dem compte ji jëlal seen drapeau drapeau nag am nga fa ay bon boo bëggee reer dem reer foofu lan nga wax ci drapeau Uba. waaw di kontaan si waa Uba rek di la ñaanal dafa leen jàmm baax di wax sponsor yàlla gën a yokku yàlla liggéey bi gën a yokku waaw mais Lamine maa ngi gërëm waa défense yëpp nag.